Guinée Max si at mi moo leen di may seen revue de presse. El Hadji Ahmed Aidara. Bigal bi leen indil packaging bu bees moo leen may seen émission Teuss. Kalinex Bon Café Unipaco Chips Cracks ñoo leen di may seen émission Teuss. yore nga bay ma man a way naa naay yore wetal nga ma cek assalaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kii moom du xaar ma kii wóor ñu fay baat yi nga xam ne. <laughs> damay ruube. waaw damay ruube. baatam mi nga xam ne moos awra la moos du bàyyi. damay ruube. du bàyyi góor ñu ubbi. te du bàyyi ñu ubbi. Ah. ah. xam naa rijaalu qawwaamuuna ala nisaa. mu ni. rijaalu qawwaamuuna ala nisaa. day tey yow sa kàddu gi sa warul jib kaw. ah. Hmm. ah Alaaji. Hmm. Damel mii di coordonnateur association jeune couturier mhm. di Thiaroye dañuy def benn journée de réinsertion le vingt et un avril la bii di ñëw remise ay yére ndékki la ñuy def réinsertion benn jour bi ah réinsertion benn jour bi am nañ ci waxtaan wala loolu lañ cee wax parce que ñi nga xamante ni dañoo génn ci kaso ak ñi nga xamante ni ñi xëy dem ba jàpp ne mënatuñoo bokk loolu loolu loolu yenn saay day am de. waaw xalaat naa ay nit ñoo xam ne nii alaaji xanaa xamoo alaaji. Mm-hmm. problème mu réinsertion bu ñu ko tuddee. Mm-hmm. xel yëpp dañuy jàpp ne ñu nekk ci kaso yi. la ñu war a jàppalee ñu bokkaat ci askan wi. alaaji am na ñoo xam ne seen kantina lakk lu ëppoon ñaar fukki million nga ci. waaw ñu toog tonk seen bopp yi commencé tourner pour ñoom mënatuñoo bokk ci société bi. illaa yow mi diin. waaw toog di ko gis nii muy lakk ba jeex. gis na suñ kaa boobu ndaw soosu. te mu jàlloon jëkkër ji dem ba tàggoog sagoom te ah, mu ne moom du ko bàyyi waaw waaw waaw ñoom Cheikh Diop ak Moussa Gueye dem nañ fa keroog seeti seeti sëñ bi ca hôpital ba waaw waaw waa ji dellu si waat dëggantaan hôpital bi ñu ko hospitalisé mm-hmm. waaw Moussa Gueye di ko laaj ne ko waa mais grand naka yaram mu ne ko waa yaram bi kay temps yi moom sant yàlla waaw mais mais mais kooku noonu alaaj kooku mm-hmm. mais kooku dañ koo war a taxaw koo xam ne lépp ma demoon ba ñaw nga yor sa atelier di liggéey mu lakk benn jour sa néeg baag yëpp lakk yaag sa soxna ngeen dëbbal dëbbal jënd seen chambre à coucher def lépp xëy benn jour mu nekk doom mhm. ah ah sa waay rek gars yi mhm. xel ci ex génn kaso yooyu waaw ñoo xam ne dañoo génn ci kaso yi ah mhm. nga loolu loolu loolu loolu loolu dafa doy waar waaw maa ngi maa ngi fàttaliku am na fi at moo xam dañoo bay a bay a bay bay waaj a uh-huh. dugub gerte yi ñor ba ba jàpp bisu déq. Uh-huh. Ah, njéeréer yi ni fa cëpp. Oh. waaw waaw mooy atum bi njéeréer yi euh, jëlee. son yi uh-huh. uti mboob. buy mboob mboob ñax mu waw. Ah, waaw xam dafa xaw a xaw a waw nii. bàyyi del oyofal <laughs> ak ay ay ay sàkket. <laughs> xoolal boobu nga xam miiru kër mooy sàkket. mu ñëw sàkket wa. yóbbu ko ca tool ya di ko taal. ci gerte gi nga xam ni moom la bay ma. non loolu jaaxle na yow yaa futti nga si bopp ba noppi taal gàncax gi nga béy buñ jéeree ba ñu ëgg si waaye daal loolu la ni alaaj ñooñu ñëpp nag ñooñu ñëpp dafa baax. a waxtaanee dafa bari de. alaaj ñëwee mën naa lekk cent fois poids par jour. moom ni muy posé. mën naa lekk cent fois poids par jour. <laughs> léegi béykat yooyu alaaj ak foofu am na béykat yoo xam ne ñoo dafa. dàqali ko seen xel kaay bi xam nga am na benn xale bu ñu fa jëlee boo xam ne mi ngi seen atelier léegi di ñaw. macha allah très bien waaw. imagine ko ko yi ne ko caabi a génn ginnaaw rek football la. wallaahi ma la ko wax. wala wala wala wala ñi lañ a doole ñu mel feebar. gars yi dañ leen di daw. am jàngoro yi na dootoo sol sama yëre. ngir mm-hmm. jàngoro sida moo ne ci moom. du sol mm-hmm. sama yëre. na mm-hmm. ma sori di ko fa bal. yow xam nga xëy na jonge jàngoro ji xam nga ko de waaye yaa ngi koy daw ba maar di taal. ngay mujj xëy sa xaru. nag léegi nag nga bokk ci nag oreille. waaye bis ngeen ci ba leer. na waar de. wallaahi waa de gaa yi dañoo foog di ñu génn ci kaso yi rek daal lañ war a taxaw yenn taxaw yi naan réinsertion. Mm. delloowaat leen ci société bi nangam sax. waaye yi am na fi ay père de famille yoo xam ne dañoo daw suñu tas ba Medina waaw dañu mën daw waaw hmm? xëy suba teel gi rek ndekki doon problème boo xam ne maari détail ci juróom-ñaari bant ak benn soxna luyaas ba facture le vingt cinq fu mu sa fit bii patpati ñu naan fi juróom benn fan borom kër gi dina ñëw nga yoreel ko ñetti weer alaaji hmm. di xandal loolu lekk baax na ndax bañ a dee. Mhm. manger mhm. pour ne pas mourir. Mhm. survivre. survivre rek. waaye yow. liñ naan. waaw waaw moo tax yàlla moo tax doxal yàgg naa way. wala doxal moo waaye nag moo fi njëkk a way survivre. doxal. dëgg waaw directeur moom ko way ba fu ne nii répertoire bi kii day wayantu sax léegi. <laughs> walaay na lépp. <laughs> si. liñ naan liñ naan liñ naan liñ naan waali woy na ñëpp ay nit rek lay way Sidi Diop woy na wayu ñëpp lépp léegi am de Youssou woy lépp waale woy na ñëpp Sidi woy na wayu ñëpp waa bala ne élection yi xanaa wax ji jaax day beneen woykat boo xuloo na ak ñëpp ah. <laughs> sama xarit la sama xarit la du ma ko tudd la de du ma ko tudd de. Lamine noonu lañ ko riimee de. waale woy na ñëpp. Sidi Diop woy na woyu ñëpp. Youssou woy na lépp. diw xuloo na ak sama xarit la sama xarit la nag dañuy daje dañuy daje. dañuy daje te damay bañ ñu daje fii gars yi ko yëkkatiw kurpeñ te moom maa bañ sama xarit la. yoo gars yi li ñuy moom yëpp ci réseaux sociaux yi nii. sama xarit la. Ah, waaye kat yu xuloo ñëpp. ah <laughs> maam ko. déedéet allah ayi turu jàmbur bi. la ilaha sama xarit la. nga ko muy tudd. ah ah waaye. ah, ah alaaj nag yow tamit nag alaaj nag xam nga alaaj man yu bëree bëri ba du ma koy bëgg di jox alaaj dina bëgg a xuus ah. ko wax rek. maam ko daa am fula daa pànk rek. daa daa daa kii rek. daa daa ñu ma dëgg rek. pànk man man man Youssou moom man man man Youssou Laha. na lépp waaw man moom Youssou Laha. waaw ki way Youssou ba pare mu nekkaat sama directeur nekk sama xarit ah mu jàpp fii ma jàpp fee ñu doxal. waaw waaw ci lii la ki la sant doxal de. ah ah ah ah kooku mënoo ko tolloo. Eh, eh, eh, ah non neexul ba neexul nag waaye nag ah. tam ñu ngi yëngu ci wàllum saayir waaye ñu bare bari bëgg nañoo toog ak moom. waaw ah man fu ma ko bëggee woo ngeen àndandoo doxal. ah mu ko bëggee jot jot ko. Mm. mu bëggee toog ak moom toog. Mm. <laughs> manqué mu dekkal yenn saa yi. waaw waaw ah dara yàqul ci diggante. am na yàlla yàlla la fa leen waaw mu téye fii ma téye fee doxal. <laughs> di daje ba bitim réew di bokk avion. te du asaar waaw mais. kooku moom man man man Youssou yéen nag yéen man ay faramaar yéen yéen surtout yow mi ak sa waaye man Youssou waaye góor sama xarit la.

Eh, non. alaaj daa dégg daa dégg. man de alaaji bi alaaji bi est-ce que du yónnee ku di baali léegi léegi. la solidarité. non non <laughs> eh. am solo xam nga damay wax mu ni ay loxo kese mënut a téye. non non ngeen bëgg génn ci ndóol gi dimbalante leen. damay wax fii loxo kese damay wax fii gars yi di ma tuuma. Ahmed loo ma wax gëm naa ko. naan ma punkal mi mbaa du delloo ak yooyu. nekkul mm. question mm. mais. li téere la loxo kese téyewul géej. way na lépp. ah te moom dafa téye fii ma téye feeñu ndox. ba ma ko santee ba léegi ba ma ko. Eh, eh. ba ma jógee ci moom la ma ko woon. Ah, ko bu dara ma téye ma téye ne ñu dox Lamine Gueye calaane yaa ngi téye waaye El li ma jaaxal man daal en tout cas moom présidentiel bi li ma jaaxal man daal moom laa ko séqal yónnee naa ko message félicité ñi ma ko séqal man man ba ma fa jógee laa man daal ba ma fa jógee dama koy invité fii te quoi dama koy invité dama koy invité ba kenn wax ma dal Ndour rek woy na lépp. am naa am naa ci liggéey Sidi Diop woy na woy ñëpp naa ci liggéey bu bees. waa lii woy na ñëpp. waaw yooyu xuloo naa <laughs> léegi wax la léegi may wax Youssou Ndour. woy na ñëpp lépp. Wally Seck. woy na ñëpp. Sidi Diop. woy na woy ñëpp. maam ko jasaaka. tudduma tur alaaji bàyyi. sama xarit la <laughs> déedéet sax euh, Abdou Bey. waaj bàyyi li ngay def waay nee na dafa benn passeport bu Sénégal vingt cinq mars képp koo xam ne gis na ko da woote ci soixante dix sept six cent neuf euh, may sa mbay nee na dafa benn carte nationale d' identité wallaay bu ñu tegee tës bi après di ngeen comprendre moo tax ñu ko béy nii tës bi tey na trop dëkk bii dëkk bii ah baax na carte commerce commerçant minéa ak lan quatre vingt mille i eh, xaalis sañ tapaset nag di daanaka sama salaire 77 363 60 39 ah heure bii tey la lan alaaj dix neuf quatre vingt mille ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a tukki mu ñu ndax essence euh, Abdou Khafour Ndiaye nee na daa réer le ñaari ordinateur ñoo nga doom day laal lañ ko ah képp koo xam ne gis na ko nag dinañ la neexal dix mille francs nga dimbali ñu rek ngir yàlla ñaari ordinateur euh, grand ak petit disque dur externe Euh, mille euh, giga benn sac bu ñuul Sofraco booru impog domaine voilà wala kii nag moom dafa réer boobu léegi toll ci fukki fan Mati Diouf treize ans di doomu Latir ak Ndey Seen dëkk Yoof Laayeen képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 373 16 18 doxalal Super. Balla Ndiaye. directeur général blessé na nee na embauché na ma. nee na nee na moom moom xam nga ni man dégg laa dégg. rek. je me pose des questions. wayu wayu Youssou Ndour kii wala ci biir terrain bi jàppale teer. yow alaaj déglu yoonu dëkk. waaw yoonu dëkk moom ko moom. voilà kii. <laughs> Naar Sarr nee waxal alaaj mu bàyyi tool daf maa bëgg dugal du ma ko nam <laughs> sama jigéen bu baax la. Cheikh Lobat Fall maa ngi koy nuyu ak ñoom Abou Saw. Fata Di Diallo le fidèle. au ministre Mame Mbaye Niang maa koy nuyu bu baax. surtout maa ngi lay nuyu waaw di suñu xarit boobu. Thierno Macky maa ngi lay nuyu bu baax Bara Dolly maa <laughs> lay nuyu bu baax ak Fallou Taximan. man maa ngi nuyu président Macky Sall. ak seen maa ngi lay nuyu bu baax a baax. <laughs> Ah, mu ngi nii. mu ngi lay nuyu ok. gerte nu mu ndax boo xoolee journal fekk <laughs> nuyu ak Eugénie ngalax bi neex na. waaw waaw ah Eugénie indi na ngalax. waaw Eugénie indi na ngalax ak tata Émilie. Ah, xam nga ñii. Hmm. la wax <laughs> luñ la wax def ko. luñ la wax def ko. non. di nga ah. ah. ne Fatou Gueye woy na sëriñ yëpp. <laughs> maam Diaga ko de maam Diaga Diallo yaa ko yaa ma ko yónnee de. Alaay. Mhm. li xew Ziguinchor. Mhm. doy na waar torop torop torop torop mooy waa ji ñu dóor balu fetal te mu dee jabar ji daal nee na boroom këram daa jug di tuur ndox ñu dégg teel wa ñu génn waa dee na bal perdu la wala dégguma génn dégg ba muy génn. déedéet dafa génn di tuuri ndox. waaw dégg teel la ñu ne leen. ñu wàccee ko balu fenn. ñu mhm. doon tëru. luy tëru dañ ko doon rëbb. waaw muy tëru muy ku nekk fenn si buntu kër si soxus fooy jaar di xaar nga jaar. ah alaaji ba ci biir kër. eh alaaji loolu yàgg naa xew. gis naa ci benn grand nguur boobu ay xale lañu. day yàqal ko addunaam. te yéex na woon dugal loxoom puus buntu ñu loxo bi tip. eh mu far loxo ba. wallaahu akbar tip dag mu ngi dund ah. ñoom ba ñu tudd juróomi suñu ngi dóori suñu suñu mu ni put donc ku la bañ alaaj ku la bañ xam bu la xam fi ngay jaar ate waxtu wooyu su euh, yow am na lu xew biig sa sa kër est-ce que mën nga ñu nettali lan lan moo xew ñun dañu ba pare dafay génne pour sow. kooku sama jëkkër. man dafa nelaw bu guddi. waaw mu génne mu génne si man dama def dama tëdd ba mu mel nii ma ma ni ne waaw kii dafa jóg dafa naan dafa def sow waaw man moom laa foog ma dégg loo dégg daa di fetal bu saf. déedéet saful loolu waaw. waaw loolu bi ko déggee après. lii a génn ma dem woo sama doom bi. moom yuuxul mu set fetal dafa yuuxu ah dégg naa bu mu yuuxu mu ne ma woy man nga rey loolu laa déggal mu nopp mu nopp laa déggal ma dem. xale ne ko ah man nga kii gisuma ko ci guddi boobu mu jóg ma ne ko ah man affaire xanaa affaire bi déggu leen ko mu ne ma ah kay dégg nañu ko fetel bi fetel bi ñu ko mu tëdd léegi ngeen ko fekk mu ñàkk bakkan man kii yow man fii laa taxaw dewuma fa boobu moom gaañ ma kii gaañ yàlla xam na man xaw ma dara donc yàlla xam na man xaw ma dara mais yow xamoo ni ndax am na ku mu mos a joteel déedéet wax dara musuma wax dara métti na di na ay doom waaw ñaata doom la ñaar xale yu mag yi noonu. mag nu ñu ah. noonu ñu jàppale leen hmm. waaw ah, ma xale la loolu baaxul ñu jëlay ma rey doom jàmm. Eh, léegi ba léegi xamuñu kan moo ko def. ma xaw ma kan moo ko def ma ko. ah en tout de day alaaji hmm. lii day lii day man day man day man day gis naa lu ne waaye daal xam naa ne ñu dóor bal sa jëkkër ci say tànk maanaam nga génn ni tiim ko hmm, ah jaaxle naa ci yàlla subhaanahu wa taala image choquante en plus doo ñii ñuy rey nii tamit alaaji lii tamit lan la dafa bizarre rey bi rey gi ci boppam nag ñoo moo bëgg a bari nag. mais bii bosam nag dafa bizarre. dafa xaw a nduru règlement de compte. waaw comme règlement de compte. Ah. moom lay nduru ndax ndaw si nee def ko ne. wuy mën nga rey ngay rey waaw. wuy mel ni kon ju woon cible am na woon senn jaar ci moom cest à kii quoi lu xew. am na lu louche lu nekk ci histoire bi ñu xamul. parce que xam nga kii bu ngeen dee seetaan film mafia yi jëkk yi ma àndee maa ngi xam ni yow mënatoo échappé jàpp dañ la la war a jàpp. ndax lay rey mu lay rey. Ah, film yi noonu la woon dañ lay rey. parce que ñu waa ji waxee ni wuy mën nga rey. kon daal dañuy xam moom. saa ñu contraindre au ah. silence waaw xam na ko kay dafa mel ni. Ah, man de dama defoon ne fetal fookaay rek ci am. nekkati hmm? fetal dëgg ñu ci réew mii ah. foo kaa yëg briquet laa ci xamoon. léegi am na yu dëgg. am na yu dëgg yu xale yu doxantoon. léegi kii ma wax. moom Serigne Sall ñaan. muy tëru muy tegg rek moo si ay. waaw waaw waaw Bakki Balla xam naa ne. tegg tegg rek. ah. nit ñi ñuy rey tamit ah! mm-hmm. ah! moo je pense daal soit bëgg ñu woon a rey kii wala ñu bokkoon ñu bëgg a éliminer kii. ah man dama yaakaar ne c'est sa cible parce que ku toog di xaar nit bu génn. yow pour nga tiire et puis alaaji koo xamante ni yow. Mm-hmm. sinon da ngeen dox ci mbedd néeg yooyu sax. waaye koo xam ne yow. ci sa génn néegam ci guddi gi di tuur ndox. Mm-hmm. laaj kooku def mel dañ koo waajal de. waaw waaw mais est-ce que moom la ko kooku kooku ah. est-ce que na la ñu waajal. wa wa waaw. ah bu ñu jaawale ko keneen ci biir wuy mën nga wuy mën nga mën nga rek. loolu mooy wane loolu mooy wane ne kooku est-ce que nekku ne da koo xam. da ko bett rek ko bett. est-ce que xamu ko. ko bett. bu néew doon wax dina la wax turu yu wàll. waaw xam na ko. te bu mënoon teggi teggi na bu yàgg. xalaatu ko sax njort. mu tëb ne ko ndax man ngay rey. Mm-hmm. kooku kooku alaaj damay ragal ne danoo xamante de xam na ko ah man de rey goo xam ne alaaj ji jëlub paaka jam diw day da koo yenub kuur da koo dóorub mm. balub fetal da koo jam rab waaw balu fetal yi sax ñun daanaka ci film yi lañ ko daan dégg rek ah, waaw wala wala ngay seetaan eh, guerre yi ay siré kii ay jamonoy Saddam Hussein ngay dégg tumbam ñu la koy wan. ci télévision tubaab yi. wala page internationale RTS. mais léegi waaye de léegi moom. Hmm. ah man de jaaxle naa hmm? waa léegi waa léegi hmm, que ni nga ni nit ki léegi kuy yebu rek teel a tëdd kii teel naa tëdd. teel naa tëdd de. ah temps yi yàgg yi kan loolu lay wax ku yeboo rek di teel a tëdd. Ah. mais lii est que teel a tëdd mën na ci daal ku jël temps am ñëw taxaw sa palanteer. di la xaar nga génn mu wàccee la. Ah. waa léegi lu ci lu ci teel a tëdd guddee tëdd tuuti. te dafa am yoo xam ne aussi dafa dafa naturel ci nit ki dangay dangay da ngay jékki-jékki bëgg tuur ndox. Ah, sa ànd la. Ah. moom walaaj mënoo ko mu ñaale. déedéet. déedéet kuy teel a jóg. déewut ku leen gunge. Mhm, mhm. te tamit gunge gi mënoo cee dëkk de. même booy tuuri ndox dëkk na ma dem jugal gunge. gunge gi sax est-ce que waaw. te salle de bain aussi alaaji nekkul ne nekkul ne ñëpp ko am. ñëpp ko am ci biir néeg. voilà ah loolu kay Dakar gi sax am na ñoo xam ne yoruñu waaw waaw. day ah, ci nekk nii day moom kay déet amul nag moom kay xanaa nit jéem pexe. bu bañ a sotti. <laughs> ak ngay ñaaw njort rek te bañ cee daal. <laughs> Uh-huh. waaye mucc moom yombul te boo ñaawee njortu ñaaw njortu ñaaw njortu ñu ne dafa gëm a di rafet njortu lool ñu def la ko def mhm. la te da nga gën a woon tëgg ñoo lay piégé yàq sa àdduna boole la ak àdduna toroxal la te sama sama sax nag loolu lañ digaloon ihta'izu mina naasi bi suu'i zann mhm. euh, moytu ci nit ñi di ñaaw njortu ci nit ñi ihta'izu mina naasi bi suu'i zann mhm. wante itamit nag ah, baax léeg-léeg lu ko mooy ñooñu nga xamante ni ñaawoo ci ñoom njort mosoo xalaat ne diw mii dina ma jam baax. Mm-hmm. ko koy mujj ëlbatiku di la tafal ay trac waaw alaaji bu saako doon wax ne taf ay trac ak revue xanaa léegi la siiw waaye taf ay trac def publicité. moo xew lu ñaaw def nañ ko sama maam di. Mm-hmm. te tafal ko ay trak biir màkk ak yëpp. Ah, waaw waaw. Mm-hmm. fu mu gis boppam. waaw ah, waaw daf bindal ko. def trac yi ak bindal ko ci mbedd yi. waaw ah, waaw di yàq leen. yàgg na fi yàgg na fi yàgg na fi. ah. xaw ma nit day fu muy rëcc fi mu nekk nii. yàgg ñu bravo ko ñu dof la. ah. ah njabarkat ba. dikk na xool ko. nee na dafa créé yàllaa yoo. dafa am yàllaa bu muy waxal nee na. te montagne yooyu lay toog di waxal ak yàlla. ah eh, maam Thierno la. maam Thierno Birahim. da ko sëñ Modou Karaat. sëñ Birahim borom daaru waaw. borom daaru kii mooy bëgg. waaw tollin gi day yiw na yaram bi yiw. waaw set dafa dafa yiiw dafa ay nit yoo ne dañoo dafa am ay mhm. yi yiiw yiiw yiiw yiiw yiiw yiw yiw ak dal yiw boo xoolee da ngay boo ko nee jàkk da ngay gis da ngay gis yàlla quoi waaw <laughs> leer ay sax moom ñu ko génneel moom bu bëgg naa ko lool yi mooy borom daaru allah borom sama xarit la <laughs> borom daaru mi yow alaaj ñu baax ñëpp say xarit lañ sëñ Bass Abdou Khadir samedi bi passé rek fi gëj fii seet si ko fii fii ci këram naa ko. te nga te jàpp mu jàpp ngeen ànd doxal. ah wax naa ko nee naa ko jàppal ma jàppee ñu doxal. ngeen ànd doxal mais man alaaji bi kenn du ma gis. la ko ni daal da ngay tàll say xarit loolu laa gëm. ah, ah, ah, ah jàpp naa de. ah waaw sëñ bi kii la ko kii Birahima ci gaaw sax kii kii Birahima taalibeem la. borom daal waaw waaw. Birahima yóbbu na fa sama soxna sax. mu jaay ko kon kay jeex kon kay jeex na yi dañoo ñëw kay ñoo ci sax moom mii borom daal aw ah, de ah, ah, parce que sama son da koo yàgg a sopp. ah man daal a loolu wàll na ma de. ah baax na baax na. bëgg naa yàlla da la xaw a roof cofeel daal. waaw koo koo roof. xaw koo roof ma doon cofeel ga ca madama màkk. laalaale la màgg laalaale la tudd. yow daal àndal ak El Hadj nii rek. ñu doxal daal ngeen ànd di doxal. waaw daal su

jano ak ANPEJ appelez nous 33 864 27 79 ou le 77 549 90 90 ou le 77 096 38 38 ou le 76 127 14 14 promo spéciale sur les téléviseurs LG 43 pouces à 190 000 francs plus support offert 32 pouces LG à 115 000 plus xanaa wax day jeex que euh, sí que está Alaaji. Mhm. Tata Emily bi ma lay wax tey. Tata Emily. Ah, waaw waaw mhm. ndox na waa Sen TV nga lax de. ah oui. ah mais est ce que du ma ko mujj lekk rek. ala mais dem ba Géejawaay jëli fa nga lax mi indiwaat ko ba fii loolu du lu may man mm. loolu moom dama leen de xam nga Alaaji xam nga. maa ngi taali mënoon naa koo sàcc bu ëllëgee charia dagg sama loxo dëgg loolu dëgg taxawaayu bis pénc ñu tata Émilie moom ñëw. yan la nga lax yan ma nga lax. <laughs> ok foofu laa jëm si woon. <laughs> yan la ko su ma neexoon ma jël ko. xaar taxawaayu bis pénc wax borom bi lu leer. ne ko hmm. nag du ma ko dul woon mën. pour jóge géej waaye jël nga lax delluwaat encore ba beddeen. Hmm. ma faf rek. def ko yëpp faale nag turé turé jaxate jaxate léegi comme que noonu la demee dama leen koy wax carrément ngeen dégg xanaa alaaj am sàcc woo xam ne boo ko jëlee itam du fi ñu yàlla a déedéet loolu boo moom doole ma may ma nga lax eh, ah, eh, eh, alaaj la am nga sab siwo ñetti siwo la ma jox ni ma naa jël ñaari waaw mais yan bay itam nag. léegi yow dina compliqué. ma rek ne benn bi yobul ko ñoom Alaaji Mansour ak ñoom Mami Samb ak ñoom Chimère. waaw léegi moo tax ma wax leen ne leen man mënu maa ñëwaat fii. ma ne boo ko naan ne dinañ la ko yan. siwo boobu dañ koy multiplier par dix siwo da nga lax yan la ko ci sa bopp bi nga ànd ak. ba dootoo ko def. Alaaji Alaaji Alaaji indi suñu nga lax waaye. daal. Allah day taam Alaaji. moom daal nee na daal jox na leen siwo bi mais siwo maa ko fure indi. indil siwo tege dege gi fii. nee altine bu may ñëw alaaj mu jox ma siwo bi ma indi ko. mais fii ba altine doo leen ma lekk. ma ne na la dege gi topp booy ñëw altine fii. <laughs> alaaji dañoo soxla suñu ngalawaay. <laughs> loolu leer. Chimère. may nga ma sa wala ma yomb ko. mayul mayu la. moom sax xool na ne. ma na ko may nga ma wala ma yomb. ah. mayu la ngala. may nga ma sama sa wàll ci Chimère ci kii ji. ngala ma sonn. waaw kay. jàpp ngeen da nga koy bëggalee say militant. te li ma ci metti siwo gi sax du la mat <laughs> yow rek ñaari nit ciy guux siwo gi jeex indi siwo gi siwo dégg gi na la topp. ak sax dañuy préparer ay assises yu nekk nii alaaji. ah waaw la quatre prochain ay assises yu géejawaay. ok yooyu on a on ngeen ko defal assise. waaw dañ koy defal assise nag am nañu benn président boo xam ne Mamadou Dieng vision. waaw mooy président commission technique bi. doyen Chérif Diop nag mooy coordonnateur suñu kuréel googu nga xam ne moom lañ fa taxawal. waaw foofu nag xooluñu jànj ak joor xooluñu grand parti wala PDS wala xawma la nag la ñëpp daal ñu ngi ci biir alaaj ñu dëkk Géejawaay daal. waaw ñu dëkk Géejawaay daal moom. ñëpp nga ca kuréel ga grand parti daal. mais ñu dëkk Géejawaay nag. parti daal laa gisul ci ñu dëkk Géejawaay ci suñu kuréel ga. waaw waaye ay réew mi ay ay ay ay ay ay ay ñëpp ñëpp daal ñëpp daal. waaw maanaam man du ma leen bëgg bëgg bu ma jógee campement bëgg bokk bokk tam lank leen. damay xam seen póotum biir ne non non non ku fa bokk. c'est yéen da ngeen bëgg gan. géej way dañoo bëgg gan suñu xol la ñu ko yóbbee rek. waaw way mais góob ma de dama ne. daal géej way authentique lu jiite géej way. loolu itam kenn xamul lan la. mais loolu dafa tegul fenn sax. koo xam ni mais loolu day ah. koo xam ni loolu day jeex. mais mais waaw gox ba ku dëkk ca gox ba ko war a jiite. waaw non dama ne lël wi dama ne la quatre la. la quatre incha allahu rabbi. après dinañ waxe waat waaw lieu bi dañu def assise bëgg nañu waxtaanee wàllum littoral baak wàllum sport baak sante baak wàllum euh, culture jaak mm. maanaam géejawaay daal ci boppam képp kuy doomu géejawaay rek mm. ak sax borom xam-xam boo xamante ne nii war nga cee war a mën a indi waaw en tout cas daal kuréel ga daal ñëpp ñëpp ñëpp a nga ca biir. waaw ñëpp a nga ca biir. joxante loxo pour doxal. waaw jël naa sama loxo. waaw teg ko ci loxo fa voilà ak waa ñu doxal. jeex daal ñooñu daal nañ loolu moom dinañ ko organiser. waaw ñëpp nekk nga ci biir am nañ lu tolloog fukk ak juróom-ñeent alaaji. Mhm. ci ay organisation muy parti politique muy mouvement muy société civile déggoo ma ne dama ne. waa grand parti lañ fa gisagul pour muy leer. Ah, xam nga wax moom dañ koy dëj non dañ dina ñëw. bu ñëw lu ñuy def. mbirum géejawaay la. bu ñëw waxuma la jël ndaare. waaye nit ñi dañuy dem. Hmm. xam nga ni moo amul. géejawaay moom feebar na genn xeetu feebar goo xam ni képp ku fa dëkk moom da ngay dikk. dégg nga loolu. Hmm. Euh, Alaaji. Hmm. xale bu jigéen bii nag nee dafa jonni. dafa jonni. lu ko jom ma. yàgg na nag. boobu léegi moom est-ce matul fukki at ak benn. waaw. daal daal keroog ba mu nit jàkk seen lëf loolee ba léegi du hôpital du kër sëriñ du te day daan day daanu yenn ba léegi ay crise yu méttee méttee méttee bu ko daanelee daal. Mm-hmm. maar di taan jàmm. waaw dal na ko tata bi muy jël di di liggéey dal na ko ci ay subhanallah ay crise yu te keroog daal ba mu ne jàkk gis mbir moomee alaaji waaw ak ñaari bëtam yi ba léegi da ko mbir mi topp te ci biir Ndakaaru génn ah Ndakaaru kay soxla na ndimbal de fa dul këru docteur day jinne dem na fa sëriñ si moom waxaale ma ay waaye ba léegi daal daa mel ni jinne jim dajeel daal ko man hmm. ah jinne adu ci ab saay saay ah baax na ay sumee ah. ana xale bu jigéen o euh, man dama am feebar boo xam ne bu ma jaaxaloon la depuis ba nekk xale ba léegi depuis que j'ai onze ans environ maa ngi woon école primaire di jàng mhm. donc jour la woon demoon seetaani euh, télé suñu kër moom en retour laa am lu ma dajal depuis ma gis ko boobu ba léegi na la lendemain rek laa commencé am ay crises yu violentes fu ma yeewoon nag bopp bi day mel ni lu ñu ubbi day métti dina métti may jooy pendant des heures noonu la ma def pendant trois jours ma récupéré waat ñëwaat waat nga ne da dem sa kër maam doon euh, seetaan télé. ba nga ñibbi si nga am loo gis lan nga gis. nit la daal forme nit la quoi mais dafa weex taal. forme nit dafa weex la mais dafa weex taal. weex c'est-à-dire wala lim sol. lépp lépp la peau ak yére tout tout tout en blanc quoi. Mhm. mais boo ko xoolee genre nuage xam nga rek ak xale mais moo ko gise noonu rek la tiit rek daw. Mhm. ci laan sama rakk yi parce que maa leen moom lu ñu àndoon daw leen am na lu ñuy toog bu ñu yeggee kër ga nag ci guddi gi affaire di kalaat mu gént mooy jooy sama yaay yee ma lan ngay jooy ci laa yeewu ne ko ay affaire yu laay gis daal le lendemain jeex na vendredi ci guddi laa ko gis samedi depuis lors jusqu'à présent may wax ak yow nii du jàng dara sama lépp la dagg dagg dagg daggee lu ma laal mu dagg ko sama étude noonu laa def ba force force force ba terminal mais jusqu'à présent faju naa fu du Gambie du Casamance amul fu ma laalu. boobu tu avais dix onze ans. Mhm. actuellement tu es âgé. vingt neuf donc on peut dire euh, ay euh, dix huit ans ba léegi rien hôpital rajo yaa ngi ni soo paree mun naa la jox nga xool récemment boo mujjee def en mai 2018 scanner laa def lépp lañ ma ne tout est normal man je ne comprends plus léegi exactement comment ça se manifeste lan la ay crise nga crise ay crise lay def donc bu may damay jékki-jékki rek miir li may wax mooy yaay maa miir ci suuf laa jëm c'était violent may màgg nag mi crise yi violence wu crise bi dafa doon wàññeeku mais par la suite crise yi ba léegi du ma lekk ak kenn moom li ma gën a jaaxal mooy ba léegi dama bokk ak ndab je suis une femme waaw je suis appelée à génn suñu kër dem sëy ji toog sama waa mën nañ ma comprendre mais est-ce que benn famille mën nañ ma accepter tel man je peux me comprendre ma famille aussi pareil mais keneen mënul comprendre loolu mënoo dugg ci kër togg ba pare yekk jox nit ñi lekk yow doo lekk mënul nekk. yow bu ko mënoo bokk ak nit boo bokk ak ñoom fu toogee lekk ak nit ñi rek dinaa daan. foo toogee bokk ak nit ñi da ngay daan. foo toogee lekk ak nit rek fu ma toogee man kese dina daan mais bëriwul. mun naa ne ay benn yoon ñaar yoon jeex na mais quant à man rek damay isolé wu man rek ay lekk des fois mu dikkal ma du ma lijjanti ken am kenn affaire. maanaam xaw a. damay toog isolé wu jàpp sama ñaar. bu may mer tam sama yàlla laa ko xëpp. di koy di nga koy xëpp waaw ci moom laa koy xëpp moom moo fi daal mun naa ne moo fi nekkal ci lépp sama papa aussi mais moom surtout ci moom laa koy xëpp ba ma gisee nii may dox je maa ngi jéem a def loo xam ne personne personne ne chasse man am na lu muy dundaale lu ma naqari sama xol mm-hmm. en fait là comme ni ma la gisee nii ça va quoi boo ma xoolee li may dund peut man ak sama famille man ak sama waa kër xalaatu woon toog un jour ba dox dem ci télé wala ci rajo di exposé sama xoolam demee instant bi nii pour dire vrai j'en peux plus quoi. Mm. suñu ma dimbaliwul rek mooy yooyu mën na ma ci fekk daal. Hmm. te bëgguma loolu ko déglu. c'est-à-dire lan la dalay sa xel dalay yóbbu ci yenn lan la. parce que amoon naa peut-être ñeewu ma sama toogu ma. bu doon damay xëy sax ko def. ñaanuma kenn soxlawuma alal kenn li tax aussi ma ñëw fi du du xaalis quoi. mën naa faj nga ñëw jël sa xaalis joxe plus de cent ma toog faju suma dara. donc neexul ci nit koo xam ne yaa ngi ñëw tout le temps ngay toog ci télé yi. nit ñi xam damay faj pendant tel jour nga wér nga ñëw doo fa gis dara. en plus traitement bi du jaar jaar yoon dangay ñëw ñu la wax lii ko liñ lay wax ak li boo demee liñ fay gis moo c'est diamétralement opposé quoi man. si je comprends bien si je comprends bien yàgg nga dégg wala nga gis koo xam ne day faj yu mel noonu mais boo demee daal. moom kay mi soo bëggee boo pare yëpp dinaa hmm? la ko jox. mais gis daal doo gis daal. gisuma ci dara gisuma ci dara pour te dire rek gisuma ci dara. te man fi nii dama sa sonn naa dëgg yàlla. léegi yow lan la booy daanu da ngay nan la ay comme genre épilepsie la je sais pas génne ay fuuri. wala da daanu ngay toog ma ni tey heureusement. pourtant musuma daanoo am ci gaañu gaañu bu dul sama bët bi te yàlla def na ba affaire boobu dafa disparaître parce que ci xeer la daloon mu deretal après ci la disparaître day violent maa ngi nii rek vite moom xaw na tane su ma daanoo pendant cinq minutes dinaa xamaliku bus si may xëy di liggéey jël trente ans bi chaque jour di xëy di liggéey daan naa ci ñaari yoon ci biir bus yi donc mu nekk c'est impressionnant da mm-hmm. nekk ci mbooloo tout le temps ci magam jëmm mm-hmm. boo solo romb nit xoonewul kii dafa feebar du ko xam donc man li ma bëgg daal mooy buñ ma mën a boole li laay rasul yi tonton Mansour mi tax ba ma ñëw ba ci yow koo xam ne mën na cee xamal ma ci moom ne ma kii li naa ko fi laa soxla ma xaalis soxlawu ma dara. maanaam koo xamante ne bii c'est sûr et certain que mën na la. mën na la tàggale ak lii mais daal li ñu mën a wax mooy que ne commencement bi daa ma loo gisoon maanaam on peut dire da nga jome. depuis onze ans léegi am nga benn. yaa ngi koy wax yàq na sa jàng parce que bu la déggee ngay wax man xam ne am nga benn niveau intellectuel dem nga ba terminal léegi nan la yàqee sa jàng. depuis troisième la commencé parce que bu ma commencé dem papier yi sax mun na baax ma ñëw marietu sa papier lii wala lii ma dem mairie parce que mairie gunaas bi laa juddoo fi laa juddoo fi laa yoroo laa xam. génnuma fi j'ai été obligé ba bàyyi jàng ma jékki-jékki daal xiyaa ba ma dugg si kandal li ba def kandal li ma ne man xam naa bu dee jàng rek je intelligente mun naa jàng ma am d'office ma ne ko bàyyi ma continuer rek ma demaat continuer waat au lycée ba terminal ñu ne ma sa am problème demal nga annuler ma annuler waat ba sama di d'identité dama ko annuler toog deux ans ma perte ko jànguma donc comme métier bi ngeen di def aussi mu bokk ci loo xam ne ça a été une passion a neex mu jaral moom ba dem université dem ba CESTI rense ñëw boobu après boobu dañ ne niveau terminal mun nga ko def mm-hmm. ma kon mun naa def kii déposer candidat libre ma daal di euh, def xaale formation en même temps mais bi déposé feebar bi dama doo ko def noonu lañ ma embarqué yóbbuwaat ma en Gambie ma nekkaat mois ça veut dire que mun mënu ma continuer leen na ci loo xam ne lu ma jubale ci lu baax te fu ma mënti toog itam sëriñ même boobu mënul ku ñu laaj leen rek la la yox ko bëgg a yàqal. dañ ko bëgg a waaw dama ko bëgg a parce que ñoom loolu la ñuy wax tout su yëngalee rab bi lu muy wax muy kii dama ko bëgg a yàq loolu kese mooy intention ci moom donc mënu maa def dara ba mu moccal ba mu yëngu ba ma yëngu génnal ci kii lu tax nga dugg ko intention mooy li mu ko bëgg a donc si je comprends bien parfois di nga dem ci ñoo xam ne euh, dinañu am lu ñuy def ba moom moom rab bi mu mu yëngatu léegi di wax à travers yow mais li muy wax dana kii dama kaa bëgg a yàqal donc yow lii la dal am na ñoo xam ne au moins mën nañu sax dem ba ba yëngal. mën nañ dem ba ko mais pour ñu tàqale ko ak man. d'accord loolu leer na loolu laa comprendre ñoom parce que bu ma ñëwee mën nañ ko dindi nga dindi ko deux trois jours mu commencé mu ñëwaat ci man man mënatuma comprendre parce que loo mën a dindi kay boo ko dindee pour man dina bàyyi nit ki à vie mais mënuma continuer nii tout le temps fii tey suba moo fi toogee trois quatre mois xamal ne duma continuer liggéey boobu parce que dina ko ma toogaat sama kër toog kër ga te loolu tamit jëmul kër hmm, nga ko vingt neuf ans am nga tamit ba say sa vie sentimentale tamit toog ñoo xam te yow maa la bëgg suba may la nee xam man fii après ay regret rek laa ci am mais mënuma ci dara de lu ci xëy nit ki ma nekkal bu compétent du ñëpp nga man a wax ni man lii moo ma dal. Mm. parce que du ñëpp a mën a accepter loolu ñëpp muñ koo accepter. Mm. léegi man sama jëm boobu man maay toog xalaat ni man lii may dund neexu ba neexul maa ngi ree di kaf di foo di ree mais à l'intérieur de moi man je me sens pas bien. Mm. ça te ronge quoi. man je suis pas la même quoi des fois quand je lis les dama naan noonu lii man nekkul man dumaa wax lii wala dumaa bind lii te du damay xam ne du tayef man je me dis à la fin je me dis est-ce que man duma dof bu euh, mhm. ne ma moment ah, dama ma jékki wax ak man la paix bàyyi ma je ne t'aime plus bëggatuma la bëggatuma la sax gis xam nga loolu koo ko wax tey neexu ci xol de xëy na sama yaay bi mosu ko jóg dinaa ko xëy de mooy yoo xam ne vexant mhm. day wax ba ñàkkal ko kees mais peut-être moom dina ma comprendre mhm. keneen mënu sama mag wala sama rak mu dund ak yow nga xam ni man dal mënoo ma comprendre nit boo taxaw ni ko bëgguma la day dem yoonam man loolu lépp méttiwu ma ci sax ay mais naa wér daal jëkkër moom yàlla moo ko yor leneen ak yeneen mais man je veux juste me sentir bien sama xol aussi ni muy def temps xalaat yi bu bari bu yàggee bu dul stress bi sax mën na ma dikke leneen mën na indil beneen feebar bu bokkut ak feebar bii nii may pour dire vrai. cest da ngay tu penses à mille et une choses. Oh. alors que est ce que man du ma dee sax noppalu moo may gën a. alors que est ma ah, li tax tey ma gën a ñëw si rajo bi loolu la woon li gën a tax parce que démb ba zéro heure quatre et demi. mënu ma fexe ba nelaw parce que su may toog dañ palaat bi rek sànni. sama yaay ne téye leen ko mi ngi daan noonu laa fa soxla guddi gi yëpp nelaw ma je pensais à ça est ce xalaat ay suicide euh, genre def ay actes ah, moo tax instant bi man j'ai un xaw a ragal parce que sama ko ko wax. mën naa ko tiital. Ah. moo tax j'ai mu ñëw toog. au moins ma wax sama xol que je me mm-hmm. su ma siy dimbali ñu dimbali ma di parce que ma sonn. macha allah. dégg naa yow li nga bëgg daal mooy yow ku la mën na ku la jàppale. dinañ ci yow bonne soirée tout. kii nag alaaji damaa yaakaar ni gis nga ànd ndoom bi. non seulement fii la mais dafa soxla. ñi nag ñoom ñi nag ñi ñoom alaaji mm-hmm. yàlla ji bind pour ñuy julli waaw di ko jaamu de jaamu waaw mm-hmm. ah, oui ñi naan jinne ñi naan amul daal ñi fore ñi ñoom daal xam naa ne li ñu bind daal pour ñuy jaamu borom ñu mm-hmm. jullee ko woor di dem màkka ah oui jinne wër kaaba gi comme ñi niñ koy wëri julli juróom normal normal léegi nag ñi nag ñoom na ci kaw suuf aussi <laughs> léeg-léeg nga am ci ay dëkkandoo yu baax de waaye léeg-léeg nga am ci ñoo xam ne day moom. ñu saay saay ñu saay saay. Mhm. aara day taali. saay saay. romb la ngàdd la. Ah. ah saay saay nga ci am. ah. yal na yàlla dimbali ndaw Sénégal ak am na yaakaar ci ñun. Mm-hmm. parce que nag fukki at ak benn ci xale. Mm-hmm. dëgg yàlla kii daf koo teel a dugg sax. teel a dugg. ndeysaan ah. sonn na sonn. ci man sax nag wax dëgg yàlla. kii nee na waa Ngab waa Ngab mooy ginnaaw Bambey dañuy déglu tës chaque jour. daw si bu dee mën na faa dem waaw. yow mën na faa dem de dem jóg ca ginnaaw Bambey la. waaw ah. dëgg la de. alaaji nag euh, jàngoro bu la dalul al nu mu mënti mel. <laughs> nit daal nit daal nit daal nit daal yàlla daal xam naa daal moo xam daal ni mu ko sàkke daal. lay dëgg la jël boobu ñu naan biiru jigéen. lor ay marsom defar ko fa moom daal moo xam ne mu sàkkee nit alaaji wallaahi la dara dalulee ngay lëf-lëf yi mel ni Ahmed Aïdara mm-hmm. xëy ni daw ngeen tëli tëli gi ay borom bi daal muy xëy daal fu ne mu la fa ci mbedd yi rek di lay stop alaaji nga koy mm-hmm. mm-hmm. tànqamlu mu lay auto stop ngay tànqamloo ko yéegali verre di xiin xiini benn jour lay xëy rek ne xaar ma dem toog xaar ko hôpital Roi Baudouin ci madame daa fa xaar sa baaraam rek nga xam ne lépp dëgg la <laughs> alaaji fa lay dem xoolal toog installé ndànk xam nañ ko fi teg ay banaadaam. xam ne xoolal mi ngi ci yoon bii dikk. wallaahi barke Rasulullaay. wallaay ah! te gis nga feebar alaaj nii mel. Mm-hmm. jékki-jékki say oo mel lu commencé fasu. wallaahi sa gémmiñ ngi lewet. Mm. say bët di wàcc. wallaahi say karaw mel ni lu ruus. sa yaram diis say mbagg bañ sa yaram diis. Mm. toog tëla. yenn saa yi tëdd gi ci boppam tëla te mënoo jug dox. yàlla daal li nekkoon safara ci yow ak saxaar. Mm. mu daal di koy rocc. li nekkoon chaleur ak béex yëpp mu roti mhm. ne nag maa ngi nii waxoon naa la chaque jour àndal ak dal teeyal lii ak lii ngay dof dof di daw ma lay autostop di lay stoppé ci mbedd yi ngay daw wallaahi ah? yaa ngi nii ne las tànkam mm. loo doo mm. réglé day ma la ko wax ngay xiin xiin alaaji mu tëral la juróom-ñaari fan xëy la lay roofaatee safara si kat dee it noonu la mel de <laughs> déedéet alaaji yeeguma ci dee alaaji bàyyil ma yem ci feebar alaaji léegi noonu lay def jékki-jékki di la roofaat say salaire. yàlla de teel a wax. waaw déedéet bàyyil noonu rek walaay moo ko wax waaye. alaaji alaaji waxoon naa la ko keroog. wax naa la ko keroog wax naa la ko keroog ci Cheikh Abdou Khadir Jeylaani bi ah ah ah sama rakk ja nee na ma dund na ba jóge fii te daal vraiment lu jëm ci wàllu fitnaw borom bi daal moom daal nettaliwu ko ay nitam daal alaaji bàyyi lun rek alaay moom daal bàyyi daal déedéet borom bi daal nee na dee leen waxal sama yu baax léeg-léeg ngeen jékki-jékki wax gaa yi ne leen ubbi benn palanteer gaa yi yër xool safara ne aw waaw kay mhm. Abdul Xaadir Jeylaani ne maa fi nekkul di ubbi ay palanteer ak yooyu mhm. man daal lu baax am daal laa rek comme que moo kay bu ñu dee alaaji képp ku mënul wax ci ñun lu baax noppi mandul mhm. waaw man nag nga dee ak ñàkk dee man moom sa waay. lu baax daal laay wax. bu ma lay weer sax weer la ci lu baax. non jeex na. bu ma lay weer sax weer la ci lu baax. <laughs> démb daal lim fi def ci teraanga li ak lii. pooy lii la ko téye. maa ngi lay nettali góor ga alaaj mm. imaam boobee nga xam ne nee na ñoo. Oh, mooy chef de village bi mooy imaam bi mooy léppi dëkk bi. Mm. ku fa judd moo lay nodd. Mm-hmm. dégg nga ku fa dee moo lay jullee mooy tudd mooy may léeg-léeg waaye keroog dee ba mu mm-hmm. mm. benn borom xam-xam di romb ca booru armel yi jàdd ñëw dugg ci dëkk bi mhm. ne leen ngeen denc tey moom kana ñu ne ko ku tedd ki kii dee lañ yaakaar adduna ak alaxira mu ne ki ngeen yaakaar adduna ak alaxira de dugal na leen ci musiba bu dee kii ngeen yaakaar ah bon sonn na yi ne ko nga ni ko ne jege si leen waa dëkk ba dikk yu ci biir bàmmeelu góor gi keroog maar di taal mhm. yu xuyu mitti ñu ne ko yow mi dem nag ba xammee ni kii ñu ngi koy mbugal lu xew mu ne leen waaw yéen kii xanaa daaw leen wax mbaaxu yàlla dëkk bi ne ko déedéet yàlla bu leen jàppee bettax gi muy dugal seenu nopp yéen ñiy génnee ko ci seenu suuf bu jàppee chaîne yu tàng yi ba takk ko seen ñaari tànk ëlbati ko roof ko seen nopp bi mu génn ci noppi ba ci des ci lañ leen di takkee yoor leen ci safara bi boo leen di wàcc jinne yi safara yi malaaka yi bu ñu taxawee di leen góolu di leen dala boo leen wàccee ba seen doy na seen karaw gi laal naag laalul bay ruy seen bët yi ni mu ruyee wàcc ba ñuy ne calal safara lii dee la dëkkee woon a benn waaye ne man mujj gi xanaa xamoo julleetuma <laughs> ñeneen ñu ne ko bëri gi ci moro julli ah ñun kat dañoo mësu ñu fenn fu yàlla di waxee ay teraangam. dañoo dem ba tàyyee julli daal. non non non ñun ñëpp xam nañ ne safara lañ jëm kay. mooy mauvaise communication. Ah, ah, alaaj lu ñuy julli. jaratu ko lu ñuy woor. lu ñuy def lu baax. dëgg la comme luñ ko def def def suñu waa ji nee nañu ñun ñëpp fee la ñuy mujjee ñu ne ko ndokk nañ ko ko yombal sax nag. ñu nekkal ko ci ñun daal nañ waaw mu ne ah cam lii tax gis nga ko. yàlla bëggul daal ku fitnaal daal. jaamam yi. xam ne lu mu bind daal ñu ko ci gënal. daal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ñii daal ku leen teraangaal daal yàlla teraangaal. Hmm. ah sama maam ko wax. yàllaa ngi rëbb képp koo xam ne yaa ngi yee fitna. xanaa wax alaaj ci xeetu fitna la. moo tax bu may wax ci feebar yemal ci feebar. <laughs> bul anticiper bu mu dugg ci dee. ay dee yooyu yëpp feebar ak dee sax dañoo wute nag. déedéet yoon yu bokk. non non non mais nag sénégalais yi kenn xamul lu boo feebaree. alaay mm. ah ñu ne la wuy ma bokkul ak dee dara. nga dee ñu ne ndax daa feebaroon. dëgg la de <laughs> contradiction baa ngi noonu. dëgg la alaay waxal déwén. Ah. ma jaaxal. waaw mais moom ba rek. dee gi moom alaaj maa fi dàq nit li ay mbirum dee mais dee gi moom tey moom. Ah, alaaj alaaj du dëgg la adduna amul solo moom nañ ñem ci feebar ji ak yàlla ak feemam ñu mënee tënk nit ñu toog rek doxal leen foofu rek foofu baaxul waaw moom daal na téye fee ñu téye fii ñu doxal ñu doxal rek daja àjjana wax ji jeex yàlla sax loolu la bëgg suñu mbokk kerkeen seen koor gi ngeen doxal ñaan gi ñaan ci koor gi nam rek ngalax yi neex dégg gi ñëw altine ñu doxal je jeex na ma jël seen siwo bi téye ko géejawaay daal di doxal <laughs> alaaj li yomb la eh, boo ko doxalee li nga gaaw a escapé voilà boo wàccee bu la neexee taal sa woto dem weekend na jeex eh, yàlla suñu borom la. jeex kenn du moom. jeex na yàlla yal na yàlla ci biir réew mi. Eh, eh, alaaji de wuy ma fii kii alaaji. waaw jubóowu si meer gi. may fàtte nag jubóo jubóo jubóo jubóo jubóo <laughs> Mansour Diop dafa jubóo déedéet Mansour namel la namel déedéet xam nga madame daf ma doon yàgg wax ni <laughs> sëñ bi dama ba ma woo man Birahim di si madame Kambi ma ni Birahim jëlal madame yóbbu ci sëñ bi ndax ku bëgg ndeysaan wax ma ko lu bëree bëri yàlla nattu ma semaine bi wallahi fu mu ëbb fu mu ëlbatiku gis photo sëñ bi rek sama xel mi ngi yar cest à ma am benn benn marxala bu may bu may benn martaba c'est-à-dire bu ma daan jàkk sama xel jeex ci yàlla am lu ma yëg waaw waaw cofeel gu doy waar daal waaw kon ko indi. jubóobee ko indi jubóobeeg madame roof cofeel googu ci ma manifeste nag cofeel googu noonu. waaye waaye bokkul ak fu ngeen bëgg a. gi la jubóo gi la. amaana beneen nga lax Las Palmas. ñoo am leen malu waaw koy waay laas. moom mi ngi da ngay dem daaru ok daaru ak li nga am ci ngalax dama damaa ñëwoot <laughs> damaa ñëwoot alaaji. dégg nga si meer nee na nga wàcc sa nawle yi nag si woyu doy na. damaa njaboot alaaji. bàyyi noonu rek boo jekkoo del baale nag. déedéet ngalax gi daal may leen ma ko. ay dara tamit te bu ma ko jëlee parce que sàcc kuy yoot moo koy def. wax naa ko mm. Sénégal gépp ne jël naa seenu ngalax. alaaji da bëgg xeeb ci sa wërsëg sàq ci sunu wërsëg. déedéet déedéet yaa ngi dégg te loolu moom duñ ko nangu. Ah. assomption. assomption waaw. daa indi indi na ngalax. voilà ah, léegi dañ leen jël ngalax bi ci suuf. Ah, jërëjëf madame Dramé. madame Dramé. jërëjëf merci waay. Ah, waaw kay non assomption ñun ñëpp la ko jox. wuy ma waaw mais yéen ñeneen ñu jox ñi tam nañu dañu. waaw léegi léegi waaw léegi man sama wax la may la alaaji alaaji liñ la yóbbante ne la ko moom indi ko waaw léegi te du euh, ngalaxu assomption gi potu bugaana nga ca sama pot a nga ca ak léegi ñetti pot ya laa jël jox leen jël seen benn pot bëgguñu bëgguñu bëgguñu indi suñu waaye ñu booleeg ñu booleeg potu waaye bi waaye sama mbokku catholique yi ubbil ubbil waaw lii lii tam mooy lan gis nga yéen damaa nekk ak yéene leen jàmm ngeen yéene ma yaa ni yow yaa a gënal pataas dëgg la kuñ ci dugal kaso sa avocat baaxul Assomption ak Tata Émilie as bay dox seen diggante benn la nga lax duñu bosam itam waaw kay ah! ñëw na nag keneen ñëw <laughs> na keneen dikk wallaay wallaay wala day tuuru sama oto bi alaaji nettoyage si ma ci fekk léegi. <laughs> jël leen lii. ma ñoo lànk ba wut ku ñu lànkale. bii dañ koy jël toftal ci. ba ñu moom géej waay waaw lii moom lii lii mbaa lii moom mbaa jàmm la ubbil at ubbil xol. asam suñu grand yoof. ñu suñu la waay. du benn wallahi waxal nga yàlla. moo ñu géej waay ak moo ñu du benn. jërëjëf Diop du benn géej waay du benn. et puis maman Émilie mag la mag ñu dàq mooñ waaw. ba ba sax yokk ci xoolal ñeex mi ñeex ci boppam ñeex mi du benn. yéen nii nag gis nga man. ñeex mi du benn pour daam xoolal nii ma koy waxee de. ne ma gis nga gars yi ngay toogal tës da nga leen di animé nii mais kenn bëggu ah. mais tey am confirmation ah, pire. ndokk de eh, ndokk may lii ko mu des. ndokk de duñ la ko may. ndokk de mukk kenn du la ko may. ndokk de ndee lii boo ko lekkee yàlla mu ci jëlee biir buy daw. Eh. ndokk de. te boo ko lekkee jubóo du ab. te nga loolu. non tey laa xam ne ñi may nekkal ñooy soxor. dëgg la. déeton. waaye yow simeer mii tee ñu ko ubbil micro bi. dëgg la yow dafa jot ñu def la mbarkaas à la kilo. topp la pas à pas foo teg sa bi teg ko fa. ndax leer na ma ne réceptionné nga yeneen sax yow waxul yow mi a ah, am na ñaa ko yónnee message léegi ñu ko nga lax baa ngi nii. Euh. am déet déet xalifis yi nañ defar seen ngalax nale waa Géejawaay laa bokk defar seen ngalax fii hmm. man yi ma fi wax nii yëpp waa GLB ñoo ma ko jox du benn parti bu ma ko jox hmm. nañ lekk seen ngalax bàyyi maag sama ngalax point foofu nag laa yem amee leen malu Eugénie Las Palmas Tata Émilie Sam dégg nga noonu waa paroisse ba nekk fële ca waxtu nim sax ah hmm. Babacar Mbaye Bam si kii ba mi moo bëgg lu yomb bopp na ñaan ngeen dagg ma dégg nga loolu te du ma ko nangu. ngalax ngalax kay bi mu ñëw fii. waaw. Hmm? Ah. waaw. Hmm. ci. ba. Hmm. non non non. ay yooyu rek. daal fi nekk nii yàlla yàlla dolli jàmm ci biir réew mi rek. loolu yàlla si. alaaji wuyu Cheikh Sarr. <laughs> Cheikh Sarr nee na. waaw ngalax yi dañu. Eh, suñu xale baa ngi lay tudd eh, ku nekk ak mooñ. mu tudd waaw. waaw ku nekk ak sa mooñ la kay dëgg la kay mm. dolli jàmm ci biir réew rek alaaji. yàlla nu yàlla suturaal yàlla nu yàlla jàppale. yàlla na yàlla aar yàlla na suuf yàlla na yàlla taxaw. ñu suuf waaw waaw yàlla na yàlla taxaw wér. ñu ngi dëkk ci galax ñu ngi dëkk. waaw alaaji kilifa diine kilifa aaday kilifa politique yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay. waaw yàlla na yàlla guddal fan yëpp ñu nekk ci buumu sëy am ay jafe-jafe yàlla na leen yàlla dimbali. ñi nga xam ne amuñu doom yàlla na leen yàlla dimbali may leen ay yàlla leer. waaw ñi nga xam ne dañoo jiitu yàlla na leen yàlla xare àjjana. ñu feebar yàlla na yàlla fëgg seenu bopp. caabi féete ginnaaw yàlla na leen fi yàlla. ñi nga xam ne dañoo xuloo yàlla nañ juboo loolu moom lu jara jara jaar jara ñaan la waaye. waaw alaaji simeer ah. ñu namante itam yal nañu. gisee waaw. <laughs> bu ma détourné nga laxi demee alaaji yàlla na rees yàlla na rees yàlla bu ma def benn jàngoro. waaw kay la alaaji simeer Diop monsieur le maire des Parcelles Assainies mi ngi noonu nag moo nekkoon ci xarale gi maire Fadja ngi nii toog moom nag ab commune su ndaw wala ci biir Guédiawaye di Mamy Samb yaa tay ree Mansour Diop a ngi nii moom miin maaka miin mi ne na su lu mën a war mi nga may ana kan la dendal nag sëtu ko tedd ki borom maamu barrière or ba ca Médine bandi Hachim bandi xule Serigne Ahmed Aïdara Karara maire la ville di leen jox ko dig daje talaata la Kalinex Bon Café Unipaco ak gaamam bi di Perfect Man le soin des hommes d'action Chips Cracks ñoo leen may seen émission tëf Bisco Biscuit bi gën bi packaging bu bees moo leen doon may seen émission tës Dieu existe et depuis lors il a tout créé même la radio ne l'oubliez jamais Zik FM Dakar ak Orange Money njëg yi gënati nañoo waaw fii ba le 31 juillet 2019 dalee ko ñaar fukki dong mën ngeen di fay seeni facture yépp ci jees 144 jees waaw waaw